mi ngi daal di gane àdduna ci bisug àjjuma yemmoo ak juróomi fan ci waaru koor atuk 1335 de l'hégire maanaam le 18 juin 1917 ci Diourbel Serigne Souhaïbou Mbacké ibnu Xaadim Rasoul way juróom bu jigéen mu ngi tudd soxna ma Jaxate teel a làkku lool ndax ba sang bee amee juróomi weer ci la soxna si daal dee wuy ji boroomam loolee waral sax ñu daal di koy jox soxna Xarimba nekk way jur ci sa Samat Mbacké mu daal di koy yar ba mu commencé jàng di ràññee téere bii di alxuraan si la ko way juróom bu góor Serigne Touba jël ko daal di koy jox kii di nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate ngir mu mottali njàngam li foofu mu daal di koy dénk itam sëriñ Alassane Jaxate ngir mu mottali mu daal di ci feggoo ak sëriñ Abdoulahat Mbacke sëriñ Saaliw Mbacke ak sëriñ Abdoulaye Jaxate sëriñ bu Mbacke nekkoon itam ku teel a ràññeeku ci wàllug julli ñii nee nan sax ba mu amee juróom-ñaari at la commencé pratiquer lii di julli xam-xamam ci wàllug diine kenn du ko nattable looloo taxoon sax ñu bëri naw ko ñu xam ci moom nekkoon na nit ku dëggu ku responsable waaye itam ku wattu woon diine jii di lislaam mu nekkoon itam ku xarañ loolu ci wàllu ko bind li koy firndeel mooy héritage yu bëri yum fi bàyyi fële ca université islamique bu Touba mi nga xam ne tey ay ndonoom ñoo koy wattu Serigne bu Mbacké daal di génn àdduna ci atuk 1991 daal ñu fi bàyyil héritage boo xam ne kenn du ko naatable